xibaar yi dañu koy doore ak conseil des ministres ñu doon amal ni ki démb ca palais de la république réew bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Faye doon ko présider ca conseil des ministres boobee gannaaw nomination yu bëri yu ñu fa nag def daa fay nag dellu soir ci li nga xamante ne moo ñeel mbiru nomination yu jëm ci appel à candidature yoo xamante ne premier ministre bu Sénégal ak ki nga xamante ne moom mooy njiit réew mi doon nañ ci nag addu ne nag bu ñu leen tabbe ci bopp réew mi poste ci bëri appel à candidature la ñu koy def loole nag ñu jàpp ne dañ ci jóge woon waaye nag la nga xamante ne moo xew démb ca conseil des ministres dafa mel ni nag loolee nga xamante ne dafa doon ab digee ñoom fàttewuñ ko nee nañu nag li nga xamante ni moo jëm ca poste yooyu ci gën a mu nekk nag dogal boo xamante ne njiitu réew bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Faye daal na koy jël dénk ko ki nga xamante ne moom mooy premier ministre bi di Ousmane Sonko instruction yooyee daal na ciy feggoo ak ki nga xamante ne moom mooy ministre secrétaire général du gouvernement mun naka fexe ba feggoo ci ak yenn ministères yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci diwaanu Sénégal ngir naka fexe xool naka la def ba mu gën a gaaw ñu daal def li nga xamante ne dafa jëm ci ay décret jëm projet d'application d'orientation ci li nga xamante ne moom mooy secteur public bile loole nag nekk loo xamante ne jamono jile liggéey la bu Sénégal daal di sumb ngir fexe nag lépp loo xamante ne dafa jëm ay projet de décret relatif ak li nga xamante ne moom mooy appel à candidature ci yenn chef d'organe artisanat ñu nekk fii ci doonu Sénégal moo xam secteur parapublic ak li nga xamante ne moo jëm ci entité par parapublic loolu lépp ñu daal di xool naka la ñuy def ba nag gën a dëggal décision boobu yi nga xamante ne ñu ko doon sàkku loolee naka tukki dem ca conseil des ministres bi doon am a palais de la république. Aminata Touré coowam ak ki nga xamante ne moom mooy Mansour Faye di actuel maire bu Saint-Louis mu nekk nag coowal diffamation boo xamante ne Mansour Faye moo ko doon toppee ki di Aminata Touré verdict ba daan ne nag wàcc ci bésu tey bi ca tribunal correctionnel bu Ndakaaru moom mi fi nekkoon ministre ci nguurug président Macky Sall maire bu Saint-Louis di ko toppee mbirum diffamation nee nañu nag jamono jile Mansour Faye moo lajj boobee procès nga xamante ne jàpp nañ ne Aminata Touré loolee mu wax du moom kott moo ko waxoon ñu bëri nag doon nañu wax ni Mansour Faye dafa luubal ay koppar yu toll nag ci mille milliards.